الحمد لله في شر وإعلاني بفضله قد حلنا ورد تيجاني وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي آخرتي نغلين دي نيو يني سفو دي سيوفر سنسيت بي دي سالم أكتو نغلين دي نيو أمبكتا كونتات ما بباها باها باها با دي دكاية تيجين تي period بيغا خمنتيني بقونا تي period دي غنا ماغ تي period دي دي جدو بيون تبع عليه الصلاة والسلام ñu di ko tàggatal ba tey jii dañu war a tëj burdu bi tey nag ñu ngi fii euh, ci diwaanu Medina euh, diwaanu Cheikh al Islam ñu ngi am euh, suñu wet Cheikh Mouhamad Taha Dem di kilifa goo xamante ni ñëpp ràññee nañ ko dëkk ci dëkk bii di dëkk Cheikh al Islam nekk doom ci Cheikh Thierno Alassane Dem mu ngi nii suñu wet ñu bàyyi ko mu nuyoo rek bu ko defee ñu jàll ci biir Cheikh Mouhamad ñu ngi lay ziar. Ah, bismillah alhamdulillah. آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مبوكي سيتان سالوم أكت نيغي نيو نيب كين كو نيكي تروم اك سانتام دي لين نيو بو باخ دي لين دالال سي بو تيد بي وليو يالا سل بو خامني بو liggéeyal sëriñam Cheikh Ibrahim Niass ba mu gërëm ko moom foofu lañ leen di dalalee nii ci weer bu màgg bi ci bés bu màgg bi nga xam ne mooy guddeeg àjjuma ci weer bu màgg bi di weeru juddoog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jiital ndokkeel suñ sëriñ suñ yaakaar àddina ak alaaxira suñ soppe soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. رضي الله عنه خمن مونجك ندوكل بوبم تي وير بي نهني ان لابراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله نم دوكل بوبم نينكو كاي ندوكل ديكو ندوكل خليفام مولانا الخليفه شيخ احمد تجاني شيخ ابراهيم نياس ñu ngi ñaan yàlla guddal fanam te may ko wér mu yàgg fi lool lool lool moom ak mboolem yi rakkam di ñaanal imaamu dëkk bi Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé gudd fan yàgg fi lool lool ak wér ak mbooleem xulafa cheikh yi nga xam ne ñi ngi ci Medina ak ci biti Medina di nuyu mboolem eh, taalibe bàyyi ak mboolem jullit ñu fuñ mën a nekk di leen ndokkeel ci weer bi. jërëjëf euh, Cheikh Mouhamad Taha euh, kàddu yi rafet na ginnaaw bu ñu amee ndigal ci kilifa yi nga xamante ni ñoo jiitee Medina Baye euh, période bi ñu toll nag foo dem ci àdduna ñu ngi koy féete foo dem ci àdduna ñu ngi koy màggal ndax lan bis bi ci boppam bés yi moo màggal boppam yàlla màggal ko Euh, ñu nit ñu ñëw di di topp ci tànk ñooñu di màggal di màggal ba si ba ñu agsi fii ñu la doon laaj fi nga xamante ni mooy euh, fii ci diwaanu Madina ak euh, taalib yi nga xamante ni kilifa gi amoon na ko ak yi ngeen yor maam seen organisation nan lay demee fii ci biir Medina Baye. waaw alhamdulilah fii ci kër gi ni ko ñëpp xamee ki nga xam ne moom la fi bàyyi fàkkal jox ko ndigal mu nekk njaati gi képp koo xam ne dangay ngay wax alpulaar mu Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu ci darixam ci barabam lañ nekk nii di waxtaan ak àddina lépp koo xam ne la ku yàlla mayoon la mu nekkoon fuuta ci roon sëriñam di fa jàng di fa sàkku barke ba sëriñam génn àddina yebal ko ci Cheikh Ibrahim ci gént mu jóge fuuta ñëw fi nag nekk taalibe boo xam ne taalibe bu am itte taalibe bu dëgg bu am mbëggeel liggéeyal Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim ci boppam moo ko teg fii ne ko yow Cheikh Hassan dem gannaaw ba ma la yeewee nga dem ma la maa la wax na la ñëwal fii ma dina nga nekkal ma njaati gi képp koo xam ne dafay wax Haalpulaar boobu ba léegi nag tukulóor yu mag yi nga xam ne ñoo jàppoon ci Cheikh Ibrahim Niass yëpp bu ñëwee fii mooy nekk seen wàccuwaay ñu ci bëri jiitu neen waaye seeni njaboot ñoo fi des ñoom ba léegi mosuñoo dalli heure gàmm bu jotee ñëw képp ki waxal pulaar ci Fuuta Boge ak li ko wër ak lépp fii moom mooy li nga xam ne moom mooy seen dalukaay fii mooy seen wàccuwaay mu nekk teraanga goo xam ne nag Baay moo ko terale woon Cheikh Hassan Deme moom it mu méritoo woon ko lool fonkoon teraanga gi lool bu gan yi ñëwee lépp lu mu am mu def ko ci ñoom ndax xam na ne ay ganu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen te bàyyi bëgg yonent bi la leen nàmpal loolu la leen jàngal doon na wax ne taalibe yi nit lum ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk na fexe bu guddi gàmmu jotee na rey moo xam nag la wala muy gàtt lum mën a am rek na rey ndax nit lum ñàkk ñàkk bu amee ceet wala doomam di ceetale dana góorgóorlu ba am nag kon nag bu ñuy Euh, feetee juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ góorgóorlu lu ñu am ak luñ amul luñ mën ak luñ mënul pour teral gan yi loolu nag Thierno ci la newoon dégg nga ba léegi loolu moom mooy dox kër gi képp koo xam ne fi ngay fanaan bu gàmmu gi de ces semaine dangay génn sa néeg ak koo mën a doon dalee ko ci xalifa bu ci gën a suuf ba ci suñu yaay sax dañu génn seen léegi jox ko gan yi dëgg-dëgg gis nga ci euh, tant bi ngay gis ne ñun ñëpp foofu la ñuy fanaan guddi ba ba loolu yëpp tamit. pour teral gan yi nga xam ne ay ganu Cheikh Ibrahim leen ay ganu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen bu ñëwee tamit sëriñ bi dégg nga ak mboolem ay rakam lépp lu ñu am ñu ngi koy jël dajale ko di ko bernale gan yi dégg nga dëgg-dëgg duñ fi am benn problème parce que ñu ngi leen di yaatal ci dënn yi xool yi dégg nga ci dëkkuwaay yi ak ci lépp te loolu mooy wareef fi loolu mooy war. loolu ci la nekk alhamdulilah mosuñu am benn euh, jafe-jafe ci loolu tamit. macha allah kàddu yi leer na bu baax euh, di xanaa it di la dénkaat rek nga lancé appel ñaanal euh, taalib yi nga xamante ni ñu ngi jugee ci bërëb bu nekk ñëw ngir màggal si bés bu bés yu sell yi fii ci Medina Baye ana lan ngay wax taalib yooyu nga xamante ni ñu ngi fi ñëw lan nga leen di gën a ñaax gën leen ko dolli. waaw innamal amalu binniyaat jëf yëpp mu ngi amee ci yéene. képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di rëj-rëjloo ci gàmmu gi di ci sonn te si yéene sellaloo ko pour màggal juddu yonante bi sallallahu alayhi ngir bëgg ko rek ak ngir màggal ko jaamu ci yàlla su boobaa perte nga boo jógee fu gën a sori ci àdduna bi tamit fekk ne ngistal rek ak nangam nangam la leneen la andi perte nga lu ci gën a am solo daal nañ defar yéene yi mais nañ ànd ak teggin nañ fuglu yonante bi sallallahu alayhi wa ci suñu xol mooy nañ ko fooglu ci suñu jëf yi ak suñu xool yi nag suñu doxalin lépp nañ xam na dëkk bi ñu nekk nii fépp foo xam ne teg nga fa sa tànk da nga xam ne Cheikh Ibrahim teg na fa tànkam Cheikh Ibrahim nokki na fa taxaw na fa tudd yàlla taxaw na fa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na fa dégg ñaan yàlla kon yow mi taalibe te bëgg a barkeelu boo ñëwee ci barab yooyu yëpp nanga ànd ak yar na nga ànd ak teggin Cheikh Ibrahim mooy suñu royukaay yi boo gisee ñu taxawal gàmm du jóge fu ne di ñëw fii ngir roy ko la ak ngir da nga euh, topp ci ay tànkam la da nga gis ne moom boo demee ci woyam yi bu demee madinatu munawara du bàyyi dara barab bu ne dana ko tudd da nga dégg mu ne bale inna hadi ardu taha muhammadun zaaka salon zaaka xandaq zaaka nanga ma nang fu ne mu tudd ko pour rek wane ne bu koy tudd mu ngi tudd ak cofeel ak mbëggeel ndax xam ne place bi am na alaqa ak yonente bi sallallahu alayhi war nañ faa taxaw fàttali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fuglu ko màggal ko kon tamit fii tamit loolu mooy li war fépp fu ñu toog ci Madina nañ teewlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak teggin ñëwuñ fi pour wane mbooloo wala pour wane daraja daraja na loo ko am am am ba ñëw nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa nag nga war a xam ne nag amoo daraja nga simmeeku ndax da ngaa ñëw pour tànq da ngaa ñëw pour tëbb da ñëw pour yokk ku bëgg a yokku nag da ngay ñëw ak toroxlu da ngay ñëw ak suufeel sa bopp da ngay ñëw ak wane ne da ngaa bëgg yokku kon nañ ànd ak teggin nañ ànd ak yar nañ teewlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ yaatal gan yi ku nekk nga fi ay xutboo nga fi ay mafatixul kunuz nga fi ay waliw yu sell nga fi te mënoo leen a xàmmee bul xeeb kenn koo gis rek màggal ko koo gis rek jàppal ne moom la gan koo gis rek jàppal ne feeñ waay la ci feeñ waay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xam ne mooy message bu ñu bëgg lancé di ñaan yàlla ñu fekkee gàmmu gi ak jàmm gan yi ñëw ñëpp yàlla sàmm la ñu ñëw ci jàmm te dellu ci jàmm ñaan yàlla képp ku liggéey ci gàmmu gi ci ñi joxe ay nag joxe ay ndimbal joxe ay ndox ñi di togg di jox gan yi ñi di bale dëkk bi ñëpp yal na yonent bi sallallahu alayhi gërëm seen jëf ji yal na yàlla nangu ko te yal na yàlla fay ñëpp seen chaîne bi tamit di chaîne boo xam ne mi ngi liggéey liggéey bu rafet ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla yokk leen te yàlla barkeel ko ba mujj nekk télé boo xam ne international lay nekk àddina yëpp di ko seetaan yàlla am na ko mun na ko te ñu ngi leen ko yaakaaral ndax li ngeen sonn ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam te ku sonn ci liggéeyal ko rek yàlla dana la fay ci àddina ak ci àllaaxira yàlla defal ñu ko te defal leen ko والسلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بألف خير ما شاء الله شما متاحة من يكون شما متاحة في مدينة باي يا كم بقى نيجان كوا خيرك نيل نيجي دفتر دوكي شكر كلي في ديك سنتي أكلي في دي وقت أنا يوم جنا يوكس نيو خم خم دينا وخلا يا رب يصلي على المختار من المدارين والأنبياء وجميع عن رسل ما شكروا وبنيون إن شاء الله جرجف